<laughs> asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal man la ci wut bitik borom kontaan naa ci abonné yi kontaan naa dafa am benn mara boo xamante ni dé fan yi day day lay rey booy ci max yi léegi dafa jox benn booy démb benn code 4 maaraam na code la koy mu dox laa jox code léegi nag da koo jox code 4 léegi nag code bi mu ko jox code bi mu jox francs 100000 bi perdu booy bi nag day woo mara bi mara bi jël te mara ko enregistré woon max baa nii démb la ko jox xaar leen ma woo leen bu baax ba ngeen xam mi ngi nii max si la woon xam nga yan yan équipe la ngi nii gisoo lii la ci maara bi defoon xañ na gars yi joué naa duñ ko gisee dañ ko xam gisoo lii la gars yi def lii la ko maara bi joxoon code bii la ko joxoon léegi nag boobi mi ngi nii yaa ngi baax code baa yi nii code baa yi nii affaire yaay nii yaa baax léegi boobi da cee teg mu péré léegi nag déglu ma woo maara bi léegi seetaan ma woo maara bi ne ko ba xam parce que ne ko damaa bëgg ay code déglu ma ak moom gars yi da leen dóor rek Sénégal yi ay quarante mille nga joxe ay vingt mille ah ñu jox la code yow kooku du ko xamoon du ko suyee déglu bu ma ko xooyee ma ne ko code laa bëgg waaw gars xam leen bopp Sénégal nañ leen ba sonn ku lay laaj xaalis dinaa ma jox la code du ko xamoon suyee ko boppam. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi nga def sëñ bi. yaa ngi si jàmm. ñu ngi baax na ñu la. kii de laa bëggoon euh, dañ naa boole woon yow code de laa soxla woon code. Ah, nga soxla woon. waaw ci Maxi tey waaw. Ah, wax nga dëgg. waaw hmm. ah, mën naa nekk kay. ah ñaata la. vingt vingt nga may dugal rek vingt ah ku bu ne vingt coupon ah, ñaar nga bëgg. waaw ñaar ko coupon laa bëgg ko ñaar ko. Ah, waaw quarante ah, quarante booy xam na koo joxoon benn code carte mais da koo suyee nee na daa yàqu nee na jàppul. ah benn ku joxoon code carte. loolu de néew na lu koy def waaye ñoom ñoom bu ma leen di jox dañuy yàkkamti lool naan dafa jaawale. ah d' accord léegi. Mm-hmm. kon man ñaar laay dugal. bu dee ñaar yi kay quarante mille nga may envoyé rek. waaw maa la yónnee quarante bi bu koy fay nga jox ma sa tur ma xool kii code yi bu soobee yàlla dina ci am. ma jox la sama. tur tur yi nga may joxaale. ah sama tur waaye wutal bu fa bu jëlal. waaw bisimilah. Euh, Cheikh Faye. gendarmerie bu Mbàkke Cheikh Faye Cheikh Faye gendarmerie bu Mbàkke Cheikh Faye. Cheikh Faye gendarmerie bu Mbàkke. waaw waaw gendarmerie laa ko wax Cheikh Faye gendarmerie bu Mbàkke. ah alors euh, Cheikh Faye waaw waaw. mais sëñ bi. sama xaalis mu ma la ko yónnee du jopul ah dana ma yow ci kasso bi lañ jëm de ko yone ndax man dama ci bëgg tek 500000 man de damay ñaan damay daal di xol ci yalla ñaan ci yalla rek. dégg dama ma ne mané ne ma damay ñaan ci yalla rek xool code yi dina la. léegi man. waaw code deux bu wóor laa bëgg rek dama ci bëgg tek 500000 man jëru sama ñu àgg code quatre code deux rek mané ne dugal xaalis ban moy sa numéro wéef. wuy ma. léegi est-ce kon doo coupé après ma xool ba xam li ci ma daal ndax xam naa daal code code man daal damay ñaan ci yàlla rek moom. Ah, mais code daal kon assuré woo ko daal li ma bëgg nga wax ko. code code ah, ah, waaw moom kay déggoo li ma la wax damay ñaan taxam naa ne yow boo ñaanoon boo ñaan mën ngaa ñaan ci yàlla sax suñu borom doole dafa dafa la baax na jërëjëf. gars yi ngi noonu sénégalais yeewu leen ci gars yi di wax ne. promobile moo leen doon may appel cun brique ak sama maara bi nga xam mooy maara ñett njaq yi nga xamante ni ndoxu sidi saar yaram bi xasum tuddee fa yaram bi tàng lës xaar ak seet yëpp moo man kenn moom ci mi réew